ñoo ngi dalal tey Cheikh Tidiane Cissé muy secretaire général agriculteur bassin arachidier ñu ngi lay nuyu monsieur Cissé. maa ngi leen di fay bu baax. di la dalal jamono ji nga xam ne tey ci Sénégal mën nañoo wax ne nawet bi door na ndax ca ne nemmeeku nañ fa ay taw yéen ngeen nekk ay agriculteur li ni mel la la leen di def. waaw kana am mbégte mbégte parce que taw moom fu ko béykat yégee rek dana am mbégte te démb ne la ñu ne Ziguinchor taw na taw na. Ah. te ay toq euh, ndox yu dal sama kaw mhm. donc loolu vraiment wane na ne vraiment baykat yi fi nekk nii ah, am nañ mbégte te ñu ngi gën a euh, farlu pour dem ci àll bi parce que comme ni ma la ko ni ma la ko waxee mooy que ne weeru koor bi xawoon na leen di bloqué mais bi weeru koor bi jeexee rek nit ñi ñu ngi dem pour defari seen tool yi pour ëllëg ak si biir bu yàlla ji tawee rek ñu mën a taxaw pour mën a ji pour mën a faire face ak euh, nawet bu nga xam ne vraiment dinañ mën ñaan yàlla yàlla bu xam ne vraiment dinañ mën a ji pour mën a yaakaar espérer am récolte bu baax ndax ni ñu ko xamee mooy ne daaw wax dëgg yàlla nawet bi dafa xaw a euh, sooxe et vraiment euh, ak crise bi nii mm, monde rural bi am nañ jafe-jafe ci problème économique donc ñu ngi ñaan vraiment euh, état farlu organisation yi farlu ñu gaaw joxe gerte gi joxe jiw yi joxe engrais bi ba nga xam ne buy taw rek da nga maam ñu gaaw a précipité pour mën a ji pour mën a yaakaar li ñu yaakaar ëllëg si biir. c'est vrai yaa ngi tudd daaw mais ay at a ngi nii ñuy nemmeeku ne nawet bi day gën di tardé loolu ñu mën koo sës euh, ci changement climatique bi ren ñu dégg ne taw yi dina gën a jege dina gën a teel euh, buñ ko comparé yeneen année nii ndax yéen waajal ngeen seen bopp parce que li ngeen gis at yee ñu wees euh, tax na ba ngeen changé seen méthode de travail ndax tey waajal ngeen seen bopp ci li ñu dab nii. waaw ah, béykat moom ne euh, garab yaa ngi commencé di am perte rek xamal nañ ne ñoom nawet jub si na parce que loolu moom vraiment seen seen xam-xamu bopp la ba nga xam ne ñoom xam nañ ko. Mm-hmm. lii problème bi rek mooy ne fi mu nekk nii gëm nañ ne ñun fi mu nekk nii euh, taw bu euh, bu bu bu teel bi dama yaakaar ne yàlla moom moo ñëw ak ndimbalam rek parce que comme ni ma la ko waxee léegi mooy que ne jafe-jafe yi nekk ci mondial bi yàlla bëri na yërmande bu nga xam ne yaakaar naa ne bu teel a taw rek am na lu ko waral parce que koom-koom bi xam nga day na waar ba pare léegi euh, njaay mi vraiment lépp a cher fi mu nekk nii béykat ku ko xam-xam ne nekkul ku salarié ci mbay rek la yaakaaroon donc lépp lu mu am fi mu nekk nii sàq yi presque jeex na euh, dara nekkatu fi euh, donc léegi bayaat delluwaat ci waar wi rek bayaat pour mën a amaat leneen lu nga xam ne da nga maam dana mën a jàkkaarloo moom pour mën a dund ak moom su dul loolu rek dana dana doy waar donc si yàlla ji tawee fi mu nekk nii wax dëgg yàlla euh, jiwu am engrais am nit ñi dem ci tool yi bu boobaa yaakaar naa ne bu ñaanee yàlla ak ni mu amee yërmandeem mën na am da nga ma bu boobaa dégg nga danañ mën a yaakaar mbay mu mbay mucc ayib bu boobaa même bu duloo sax nga am dugub am mboq mën a dundee te wax nañ ne fi mu nekk nii dañ bëgg léegi nu ñuy bayee ñu dundee ko bu boobaa dana nekk njëriñ pour askan bi ñaa ngi koy wax ci sa euh, biir wax état daal di def euh, kem kattanam su ko defee mu distribuer semence yi yan information ngeen ci am. waaw fi nekk nii daal li ñu am ci information mooy que ne def nañ notification maanaam notification mooy maanaam opérateur bu nekk jox nañ la dégg nga maam poids bu nga xam ne dégg nga am moom nga war am pour joxe ko dégg nga am ci localité bi nga xam ne foofu nga ko war a mën a joxe léegi nag problème bi mooy buñ la joxee notification. léegi yow da nga war a def mise en place mise en place mooy maanaam jël gerte gi ñu la jox ne la ne lii moom nga am yóbbu ko ngànd mbala yóbbu ko jamagaajo mbala yóbbu ko euh, jokkul mbel bu bu boobaa gerte googu da ngay jël sa camion nga chargé ko yóbbu ko foofa boo ko yóbboo foofa nag bu boobaa da nga maam autorité administrative bi moom mooy composé da nga maam commission yi nga xam ne ñoom ñoo koy distribuer léegi nag comme que ñoom jot nañ notification ngir yàlla léegi nañ def le tout pour yóbbu gerte gi fi nga xam ne foofu lañ leen indiqué pour yóbbu ko. kon yi ñan ministère moo koy def mooy mhm. xool opérateur yi nga xam ne am nañ gerte. Mhm. bu boobaa dégg nga maam ñu jox leen notification ne leen ne gerte sàngam bëgg nañ ngeen yóbbul ñu ko place sàngam ci poids nangam. Mhm. bu boobaa ñoom dañuy jël gerte googu yóbbu ko ci place ci poids nangam. bu boobaa dégg nga maam dana permetre à que euh, mu ñëw. autorité administrative bi comme li ma la wax moom mooy former président de commission président de commission boobu nag dafa am ñi muy àndal muy organisation paysanne muy force de l'ordre yi muy groupement féminin yi ak groupement dégg nga maam euh, sportif yooyu ñu formé ko pour pour beaucoup plus de transparence pour buñ koy séddale élégi ci biir ñu mën koy jox baykat yi ci baykat bi ci lu xam ne dégg nga maam dafay jaadu hmm. loolu nag fi nekk nii loolu moo des pour gerte gi ñëw sur place autorité administrative dégg naa sax ne choisir nañ dégg nga maam ñoom seen président de commission yi hmm. léegi nag bu ñëwee rek automatiquement rek ci vingt quatre heures sax wala ci quarante huit heures mun former former commission yooyu pour ñu def ba opérer dégg nga ma pour mise en place mm-hmm. kon euh, kon yéen bu weesoo notification yi ngeen yëg ne ñii di opérateurs yi yëg nañ ko yéen à votre niveau yéen ñii di béykat yi amul leen benn information ci kañ la ñoom euh, la ñuy def procédure bi nga wax ni yëpp ak kañ ngeen di jot ci seen i semence. waaw loolu moom wax dëgg yàlla umpa gum nañu umpa gum nañu daal la mesure yu jotagum benn benn benn benn benn. Euh, gox bu nga xam ne dégg nga maam tey joxe nañ semence te ñun suñ gox yi gerte ñëwul xam nga bu gerte joxul boo defee commission bi mënoo jot mënoo jot gerte. Mm. parce que gerte gi mooy mooy mooy mooy mooy li nga xam ne moom lañ mën a jot pour man koy jot. donc loolu daal mooy problème bi léegi nag li ñu ñaan état mooy mu gën a pressé mooy opérateurs yi pour balaa le quinze semaine prochaine na gerte yëpp ñëw ci place dégg nga ñu mën koy joxee parce que am naa gëm naa ne balaa juin moom. yàlla ji dina taw te bu yàlla ji tawee nit ñi dinañ dem ci tool bi donc loolu moom nañ ci uh-huh. gaaw le maximum possible pour dégg nga maam balaay le quinze semaine prochaine nit ñi man a jot seen gerte li jëm ci njëg li ak coût yi ak quota nga xam ne moom la ñuy jagleel ah, ah. Euh, diwaan gu nekk amu leen ci tamit euh, ay info waaw pour euh, jiwu quota yi moom jotaguñu info yi parce que jotaguñu poids yi nga xam ne gox bu nekk moom nga war a jot mais je pense que ne loolu war na mën a nekk peut man jotaguma information mais li ma gëm daal mooy ñun liñ bëgg wax ren mooy ah, nañ def lu tout ba nga xam ne da nga maam gerte gi dem ci loxo yi mu war a dem mooy ci baykat yi nga xam ne da nga maam ñoo koy utiliser pour suur ko ci suuf et jox ko ñi nga xam ne da nga maam tey jii dañu nekk dakaar rek da nga maam di di di récupérer ay tonnage di ko jaayaat ba nga xam ne la ak si bi da nga maam du mën a nekk lu nga xam ne day nekk njëriñ parce que loolu dana daan indi ay waroo da nga ci diggante estimation yi ñu euh, utiliser ne lii la ñu ne ñun du lii parce que ñoom fi ñu doon espérer ne joxe nañ ko pour ñu du suur peut-être loolu dana am te bu boobaa da nga maam boo ko estimé ci valeur boobu da nga da nga nga juum. Hmm. loolu moo doon indi problème bi donc ñun liñ bëgg daal mooy nañ fexe ba nga xam ne baykat bi nga xam ne moo nekk dégg maam au fond di biir àll bi ñu jox leen ko ñu bay parce que ren umpuloo la ne crise bi métti métti bi nga xam ne yaakaar nañ ne mbay bi rek moo ci mën a génne nit ñi te bu mbay mi doxul da nga maam dana gën a méttiwaat ci nit ñi parce que fi nekk nii. nit ñi sonn nañ mais bu mbay mi doxul rek dana gën a métti te yaakaar naa ne état conscient na ci niveau boobu te yaakaar naa ne fi mu nekk nii buñ boolee suñu force force organisation paysanne ak force état ñu tàkkale ñi nga xam ne da nga am ñoo nekk ci le terrain da nga am di def suñu loolu da nga xam te duñu ay acteurs. Mm-hmm. ñu génne leen si bañ set wecc ñu liggéey liggéey bu nga xam ne dana mucc ayib pour dégg maam ñu mën a suqali suñu économie. tey en tant que béykat lan la lay def nga dégg ISRA ne mën naa dépasser euh, ci objectif lu toll ci euh, soixante cinq tonnes de semence euh, d'ailleurs nee nañu lool la ñuy xaar ci at gi tey nga dégg li ni mel lan la lay def. waaw ISRA moom wax dëgg yàlla at yële yëpp passé ñekkoon nañ nekk ñu nga xam ne dañ ko doon dañ ko daan parce que ISRA dafa demoon ba à un certain moment. amatul sax outil pour liggéey. Mhm. loolu lépp euh, je ne sais pas lan moo ko waraloon parce que euh, ISRA fi mu nekk nii boo bëgg a bay vraiment moom rek moo mën a tax mbay mi dem parce que moom moo nekk ci bopp mbay mi parce que moom mooy defar jiw moo koy defar ba nga xam ne ëllëg si biir mbaykat bi mën koy ful ba pare moom mooy defar jiw pour xool jiw bi nga xam ne mooy adapté changement climatique. Mhm. donc su loolu amul nag joxuñ leen matériel joxuñ leen outillage ba nga xam ne moo a complication te umb looloo ne at dañ daan wax ay mauvaise semence mauvaise semence boobu nag lu ko doon indi mooy euh, ISRA dafay defar pré base bu defaree pré base jox baykat bi base da multiplier ko ba ëllëg ak si biir muy nekk R2 ba R1 R2 bu demee R3 dégg nga maam mu war a dem dégg nga a lu l'huilerie pour dégg nga maam ñu euh, éliminer ko soo de recommencer a zéro mm-hmm. léegi nag ISRA comme que moom yooyu yëpp nekkuloon ci ba nga xam ne da nga maam gerte gi dafa demoon presque ba R3 nga xam ne dootu amati rendement yi war parce que R3 moom presque euh, euh, dañ ko war a dem nal ko diwlin dégg nga bu demee nag ci loxoy baykat yi bu boobaa. Mhm. boo jiyee doo am rendement bu doy parce que koo war a am une tonne deux cent am fa sept cent kilos baykat bi dafay perte lu bëri dana mhm. perte plus de cinq cent kilo six cent kilos xam ne tey jii bu amoon gerte jiw baax da nga maam nekk lu nga xam ne mooy mooy njëriñam léegi nag. loolu mooy problème mu ISRA duggaat ci biir système bi defaraat leen ñu jiw yu adapté defaraat leen ñu jiw yu mucc ay yu nga xam ne dina am ay rendement yu war donc suñ demee ba nga xam ne tey jii mu ne am na cent cinq cent cinq mille tonnes hmm. yu nga xam ne da nga maam dina ko mettre à la disposition mu nekk variété yu bees parce que déggoon naa dañu ne am nañ sax ay dix variétés yoo xam ne war nañ ko expérimenter. Hmm. yu adapté au climat donc yooyu yëpp bu ñu leen boolantee ci saa dana nekk mën a nekk njëriñ mais su loolu amul dégg nga maam dana nekk complication. tey jii ci xayma ak ko lan lañ mën a jàpp ci campagne agricole gi wees. waaw campagne agricole bi weesu wax dëgg yàlla amoon na torop torop euh, parce que yeneen problème bi mooy engrais moom manqué woon ba nga xam ne euh, récolte yi demoon lañ ba à un certain moment mu nekk récolte yu xawoon na euh, kéemaane parce que li ñu waroon am ci rendement amuñ ko ba pare jiw aussi tim nag. ñoruloon ñor bu nga xam ne danga maam dana diis diisaay bu nga xam ne béykat bi bu jaayee euh, tuuti rek mën a am poids bu nga xam ne ëllëg ak si dana si mën a am xaalis bi wan finalement yooyu nekkoon ay jafe-jafe donc euh, euh, loolu nekkoon na problème bu nga xam ne dégg nga dana doon nekk suñu jafe-jafe léegi nag ren nag vraiment suñu demee ba nga xam ne jaay nañ ba baykat bi ñu yaakaaroon ne dana am ay bon impayé finalement ñëpp jaay nañ seen gerte te jot nañ seen xaalis vraiment dana nekk euh, mbégte parce que jafe-jafe bi mooy ko doon yi dañ teel a dañ yéexoon a dugg mu nekkoon coow lu bari parce que chinois yi dañ ñëw ne il faut ñu dindi taxe à l' exportation bi bon ñu yéexoon koy dindi bon baykat yi di tuñ tuñ fu nekk pour jaay mu xawoon a jafe mais ñoom bi ñu dugg see ak euh, Sonacos ak Copéol da nga maam nekk de nga maam ñu mujj gi ñuy jaay suñ gerte yi ba jot nañ ci ñu xaalis vraiment loolu vraiment nekkoon euh, mbégte ci béykat yi. ndax loolu dafa feeñoon ci campagne de commercialisation bi. waaw feeñoon na ci feeñoon na dans la mesure xam nga fi mu nekk nii ak li ñuy produire huiliers yi ñoom mënuñ ko nal ba pare dafa amoon ay huiliers yu nga xam ne dama ñëwoon à la commercialisation muy waaw muy SAIT ak yooyu donc COPEOL ak euh, euh, COPEOL ak Sonacos rek mënuñoo na jënd gerte gi sans chinois yi donc chinois yi aussi teg sur la balance ne il faut que ñu dindi exportation bi. donc loolu bi ñu ñëwee nag boo rek ñu ñoom Copéol ak euh, Sonacos loolu moo waral à ce que baykat yi seen gerte gi mën a teel a jàll ñu man koy jaay euh, mais su loolu amuloon ni ko noon yi euh, gerte gi dana des loxoy baykat yi te danañ ko jaay ci prix yu nga xam ne day bon bon boo xam ne bu boobaa dana doon nekk complication mais finalement tout est bien qui finit bien maanaam lépp mujj na dégg nga maam ñuy jaay ko parce que chinois yi ñëw nañ mu am concurrence ñii jëndee fii ñii jëndee na le ñuy jaay ci prix yi xam ne vraiment xaw na abordable finalement dégg nga maam béykat yi amuñ boo effet ku ci nekk jot sa xaalis dem def ci dégg nga maam ñu faji say soxla loolu moo doon situation ren bi. léegi boo ko doon jox benn note justement ci benn échelle bu dix. Euh, lan ngay wax ci ban baar la campagne de commercialisation bi nekk fu mu nekk nii. assez bien moom amugul bien mais assez bien daal mënoon nañ ko koy jox parce que <laughs> euh, déglu na ne Sénégal yi fa lay ko ñu dugg. Ah. moo bi frontière yi. ba nga xam ne moo fee MP amul parce que boo MP bu amul moom de konoon on pourra faire une campagne mauvaise euh, note mauvaise lañ koy defal. donc euh, euh, mais bu demee ba nga xam ne da nga gerte gi tas euh, jeex na ci loxoy baykat yi je pense que ne loolu danañ ko defal assez bien mënoon na def plus bien il pouvait mieux faire nag mënoon na def mieux faire mais finalement daal noonu boobu daal lañ ko mën a defal. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Cheikh Tidiane Cissé. jërëjëf merci beaucoup. merci jërëjëf merci beaucoup. merci.